بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مبكي جلدي دغلو سين راديو سفينة اف ام 98.2 كادوغي دي بايكو في تي معهد بشيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه تي اسكاد اربام سين بوكو دارا الامام مام غورتوب dellu si waat naag yéen ci seen émission siiratu rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu tànne ko min xilaasi dahab fi siirati xayril arab bu suñu maam cheikh alhaaji malik radiallahu taala anhu wa ardaahu anna bi ñi ngi dellu nuyu mbokk yépp di leen ziyaara di balu aq di ndokkeel ñi nekk ci jafe-jafe yal na yàlla génne leen ci ñi faatu yàlla na yàlla atte leen ci yërmandeem ak mbaxam teral seen wàccuwaay way tawat yi yàlla na yàlla saafara leen jiital ci nuyoo bi suñu imaam suñu njaatige Cerno Hamidou Yoro Ba teg loxoom ziyaara yi mu tegal ñu ko ci loxo kilifa yépp ci biir réew mi ak ci biti réew di nuyu suñu mudira xaaja ñum ma ak ñi mu àndal ci wàllu technique bi Alxaaj Maxtaar ñoom ak mbokki daara yi nga xam ne ñoo séq rajo bi ci wàllu émission yi ñu ngi dellu ziyaara ñëpp di leen balu ax mu mel ni tey ñu ngi ci alfasla assaamina fi zikri tazwijihi sallallahu alayhi wa sallam ummana khadijata radiyallahu taala anha wa binaa'i qurayshin ilkaabata fasle bi nga xam ne moo juróom-ñetteel ci xilaasu dahab góor gi mi ngi ko ràbb ci tudd denc gi nga xam ne sallallahu alayhi wa denc na ko jël ko soxna suñu yay ummul muminina xadijatu radiyallahu taala anha ak xew-xew bu am ci jamono boobu it muy tabax goo xam ne Quraysh taxaw nañ tabax ko Kaaba ga ca mu fekke ko itamit taxaw ca taxawaay bu rëy rawatina bañ demee ca toll ci sottal ci wàllu xajarul aswad bañ ca wuute ñu dellu ci gannaaw ci fasli bi ñu jege rek wan na la ne sallallahu alayhi wa bi mu amee ñaar fukki at ak juróom génn na dem Shaam ànd ak Maysara di liggéeyal yaay Xadija booba mu doon njaatige waaye bi mu ñibbisee mel na ni léegi mbir mi soppiku na ah léegi na la nekk ci loxom mu yilif ko ak lu mu moom loolu lay junj moo mu ne wa baada shahrayni fi dal aami thummata xamsatin duuna muttahami xadijatun dammaha biljazli xaaizatan xayaataha غيرها المختار لم يكن إن الصحيح الذي الجمهور فيه معا إنكاهها في يهي من دون ما وزمي إن المزوج قال العم قيل أخوها قيل والد والدها سكران من إثم على الثلاثة ذاك العقد قد حضروا لذلك الفعل منسوب لكلهم رضي الله عنهم وخ ليغا خامني مو غنا سيو با بري غنا وير من آه، خديجه ليغا جيلكو وخديجه سخنا خديجه بنت خويلد ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي ci jaahiliya ñu ko daan wax taahira ndax sell ga daan ko wax sayidatu quraysh ndax benn jigéen tegu ko woon tànk ci ñimu mu jamonoon teel du ci askan du ci taar du ci alal du ci fayda dama ne wax xadijatun soxna suñuy wax xadijatu binti xuwaylid denc dencinam ko sallallahu alayhi wa sallam haizatan mbir mu muy làq booba bil jazli ci dëgër ca booba jazli la am ci at jiim ñett la bu fekkee razayin bi muy fukk razayin juróom ñaar la fukk yi fekki lam bi fanweer la muy ñeen fukki at loola kañ la am mu ne baada ni gannaaw ñaari weer fii zal aami ci at mii la ma waxoon muy atum ñaar fukk juróom ci atam sumata xamsatan wa xamsatin wa ishrina yowm ca ñaari weer yooyu tegal na ñaar fukki fan ak juróom duna muttahami ci lu dul benn tuuma ci la ko sallallahu alayhi wa denc kon soriwul bi mu jógee ci voyage boobu nga xam ne da doon yaxantu di commerce ci alalu yaay Khadija ci voyage boobu bi mu ci jegee rek la mbir mi taxaw danañ ci ñëw gannaaw bu ñu daaneelee bayt yi moo tax góor gi ne inna saxiixa bir na ne la wér allazi la nga xam ne aljumhuru barga li ëpp ci borom xam-xam yi loolu la ñu yaxal ma an fiihi ca lañ daje ma an mboole seen inkaaxuha mooy dencug yaay eh, sallallahu alayhi wa sallam yaay ci ñaar fukki atam ak juróomam min duni ma wasami ci lu dul dolli na soo gëstoo gis leneen waaye neena jàppal ci lii ma la wax am na ñuy wax ñaar fukk ak benn am na ñuy wax ba ca ñeent fukk ak eh, juróom waaye nee na jàppal ci lii ma la wax in kaahuwa fii yaxyi sallallahu alayhi wa bi muy dencee xadija mi ngi toll ci ñaar fukki atam ak juróom bay khadija tollu ci ñen fukki atam mu magge ko fukki atak juro kon nak li ci dess aade la rek diw soxna mako mak fofu la jëkki na fek mu mat liñ koy doye rek li ci dess lépp aade la du diini mu wax nak ci kilifa gi maye sëy bi mu inna al muzawwija bir na ne ki maye sëy bi qalu wax nañ ni al bay baytax bi la ca mooy amru bnu asad ca loolu mooy as saxiix ndax li wér di wane ne wax ba ca kanam taxawul ca mooy wax bi wax ne bàyyam a ko maye ca dafa màndi booba xamul lu muy wax ndax xamoon na ne bu nee ci sagoom du ko def góor gi ne innal muzawija bir na ne kii maye sëy bi xaalu wax nañ ne al ammu bàyyi taxam bala amru bnu asad xiila am nañu wax nga gis ni mu waxee qaalu al am fii mu euh, siixa tamrid la andi mu ne xiila waxee na ne axuha càmmiñam muy turandoo bàyyi taxam boobu di am bnu xuwaylit mbokkam mi ñu tudde baayam bu ndaw boobu xiila waxeef na ne sax waaliduha way juram xuwaylit ci boppam moo ko maye booba sakaraane mbir mu muy màndi min isami ci njollum sàngar waaye wax boobu du lu taxaw ndax li wér moo di ne euh, xuwaylit mi jur soxna Xadija faatu na euh, euh, ca lu jiitu xare bi ñu waxoon ne salaahu salaam teewee na ko muy xarbal fujar kon nag mënul fekkee pas-pas bi ba di ko maye kon nag loolu du riwaaye boo xam ne dinañ ci sukkandiku waaw mu dellu rek ci ni xale bi ràbbe nga xam ne mooy cosaanam mu ne àll thalathata amaana ñett ñëpp xad xadara xad dañu teewee daakal aqda pas-pasu sëy boobu bu boobaa looloo tax li dalika ngir loolu moo tax al fialu e, maye ga mansuubun lu ñu askane la li kullihim ñel képp kenn ci ñoom waaw su ko kon li wér mooy li nga xam ne moom la yaxal ca mooy amru bnu xuwaylid mooy ki nga xam ne moom moo maye sëy su ko defee ñu taxaw foofu tuuti rek boo demee ci taarixu tabari ñu jële ci alwaaqidi foofu taxaw na fi mu ne loolu xalat la li sax daal mooy li nga xam ne mooy riwaaya bi ñu jële ci ay aïchatu radiyallahu taala anha ak xibrul ummati abdullahi ibnu abbas mu ne bàyyi tëxam ca mooy bàyyam bu ndaw moom Khadija ñu koy wax Amru bnu Asad moo ko may rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sallam ndax bàyyam faatu na qabla alfujar nan la sëy ba doxe mu bi nga xamee ne sallallahu alaihi wasallam ñibisina ñibbisi na dellu si màkka bàyyi ci tukki boobu mu demoon Shaam ci yaxantu ci alalu yaay Khadija mu jot solo ca mooy xabaar egsi na ci moom ci bénéfice bi nga xam ne am na ko amul ku ko masa am ci ñi ko daan liggéeyal mu bég ca lool waxoon naa la ne may sara itam xale la boo xam ne daf ko boole woon ak moom ne ko ñàkk ko wóolu tax ma taxul ma boole leen siivaral ma ko rek loo gis noteel moom moomu bi mu ñëwee moom it def na compte rendu am ca la mu gis ci léeg-léeg ñaar yu koy tiim mel ni euh, euh, euh, yor ak seeni laaf ci ay malaaka lañu wala niir wu koy keral ak làbbe ba mu wax ba mu waxoon ci ne kii mooy yonent mujj jamono li mu gis ci ànd gi mu ànd ak moom ci xeeti kéemtaan ci garab yi koy keral di bàyyi nit ñi di ko fekk ci catu fa mu toog ak li nga xam ne moom la am ci bénéfice boobu nga xam ne wax nañ ne la kenn mësu ko am soxna si bég ci lool lam ko waxoon ne danaa la ko jox sax mu fulal ko ko multiplier ko ko waaye nag terewul am na lu mu yëg ci boppam moo ko gën a intéressé ci bénéfice bi moo ko gën a intéressé ci yépp ca mooy kii nan lay def ba doon soxnaam ah mu ne damay jéem a ubbi bunt bi rek seet ku ma ci doy ñu ne nag mu am soxna suñuy wax nafisatu binti munabbe nëbbe moom la soxna Xadija doyloo ci mbir mi ne ko dox ko su yéwénee sa affaire dana baax moom mooy ñu déglu ko soxna si bi muy bi muy dem nafisa loolu ibnu saad moo ko nettali al jële ci waaqid yi mu ne soxna Xadija moom nafisa mooy wax نانا كانت خديجة امرأة حازمة جلدة شريفة ما أما أراد الله بها من الكرامة والخير وهي يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك طلبوها وبذلوا لها الأموال فأرسلتني دسيسا إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع في عيرها من الشام فقلت يا محمد ما يمنعك أن تتزوج فقال ما بيدي ما أتزوج به قلت فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب قال فمن هي قلت خديجة قال وكيف لي بذلك قالت قلت عليه قال فأنا أفعل رضي الله تعالى عنها من فذهبت فأخبرتها فأرسلت إليه أن ائت لساعة كذا وكذا وأرسلت إلى عمها عمرو بن سعد ليزوجها فحضر وذلك وذكر ذلك صلى الله عليه وسلم لأمامه وحضر ومعه عمه أبو طالب وحمزة ورؤساء مدر فخطب أبو طالب نينا مو وخ كريتير يتي سخنا خديجة موم نفي ستي بفم دي جيجين ني موم مني جيجين لون بو أم دوغو بو دغر bu am personnalité sharifa boo léegi nag li ko yàlla dencal muy teraanga ak yiw nee na ci askan ci Quraysh ci tànneef ya la ci wàllu tedd nga bi nit di am gannaaw bi mu amee tedd nga ci askan ca ña ca jiitu la gën ca màgg bu dee ci wàllu teraanga àdduna muy alal jigéen ëpp ko alal ci Quraysh nee na ñi ñi mu bokkal ñépp góori Quraysh yépp ku sañoon mu doon sa soxna soo ko mane ca def nañ ci jéego sàkku nañu ko jox nañ ko alal yu bari waaye mu gàntal nee na soxna soosu tey nag moo ma yabal man ma doon ndaw dem ci Muhammad ibni Abdillah gannaaw bi mu jegee ci voyage boobu Cham ci jëgg googu nga xam ne ci la newoon doon ko liggéeyal nee ma ñëw ba ci moom seet si ko ñu bokk jataay nee na ma ne ko waaw mbokk yow Muhammad sama càmmiñ lu dox sa digganteeg nga denc jot na nag xanaa mu ne ko ah, ñàkk moyen rek niñ koy waxee maa bi yëddi ma ma atazawaju bi ay la yéwén mi ngi ci xel mi waaye jekkuwuma ko mu ne ko waaw bu dee bunt boobu fàtt nañ ko dañ la woo ci alal woo la ci taar woor la ci tedd nga woo la ci nawle xanaa di nga wuyu mu ne ko ah, loolu ngay junju kan la mu ne ko xadijatu <laughs> mu ne ko xadija nga xam ne borom barke yi màkk yëpp ku ci ne dem nga mu dàqal la loolu nan la mën a amee mu ne ko loolu du sa affaire yow daal bu dee buñ la woowee ci bunt boobu yëpp di nga wuyu waxal mu ne ko ah bañ a wuyu nee na mu daldi sol dàllam dellu soxna Nafisa ne ko ah buntu ubbeeku na ci mbir mi de waaw kon nag baye boo rekk nga seet nu ngeen jokk ko mu ne ko boo demee ne ko na bàyyi ba heure sàngam mu ñëw ñu waxtaan mottali suñu waxtaan ndax waxtaan wi Nafisa wax tàmbali waxtaanam la a ma ne ñu mottali suñu waxtaan ah bi mu ko joxee heure boobu mu xam ne kii ak ci dogoom ak ci faydaam moom it mu defuk mat daldi euh, jokkook ay baayam yu ndaw tàmbalee ci abu taalib mi nga xam ne moo ko yar waxtaan ak moom ci mbir mi waaye gëmewu ko moom tam soxna xadijatu yónnee ci bàyyi taxam boobu ñu waxoon amr ne ko dama bëgg nga ñëw heure sàngam sama eh, eh, kàddu jox naa la ko nga may ma muhammad ibni abdillah ibni abdil muttalib nee bi waxtu wa jotee sallallahu alayhi di ñëw ànd ak bàyyi taxam ya muy baayam yu ndaw yi abu talib hamza ak kilifay giir dara gi gi mu bokk bi ñu ñëwee fekk bàyyi xadija bu ndaw teew na jàmmiñam teew na nee ñu daldi maye sëy ba keroog bàyyi taxam abu taalib moo def xutba bi wax ne mi ngi sant buur yàlla bi leen def ñu bokk ci njabootu ibrahim alhamdulillahi alladi jaalana min duriyati ibrahim boo boole ñu ci meññenti ismail cosaanu maat ak mudar def ñi nga xam ne ñooy sàmm bayt néegam bi di wattu xaramam bi baaxe dëkk bi ñu dëkk muy màkka mu samp fi néeg boo xam ne néeg bu ñuy aj la def ko muy xaram aminan barab boo xam ne bu uh, wóolu la ku fa dugg raw nga def ñu it nga xam ne ñun ñoo méngoo di àtte mbiru nit ñi ca la dem ba wax ca xutbaam ba ne sama doomu mbokk mii di sama doomu frère bi Muhammad ibni Abdillah amul góor guñ koy dendaleel ci fi mu bokk ak fu mu bokkul lu dul ne lëng na kooka ca may wat na ko waaw amul kenn kuñ koy dendaleel lu dul ne kenn kuñ koy dendaleel lu dul ne rek moom wat na ko tiim ko ci buntu ngëneel mu ne su dee ci alal la nga xam ne ñu bari seen bët foofu la tege alal lu néew la ca ker la goo xam ne dafay tuxu ngir la moo xam ne dafay soppiku ngelaw luy upp rek la mu ne leen nag Muhammad mi ñuy euh, euh, euh, labatal Xadijatu xam ngeen jege ñaale nee na ki nga xam ne moo moo koy moom lay labat itamit xam ngeen ne ñoo bokk ca mooy Xadija binti Xuwaylid waxoon la ne ci Quraysh la bokk nee na eh, eh, joxeel na eh, génne na ci alal nag lim koy cane loo xam ne am na ci lu ñuy teewal am na ci loo xam ne dana ñëw gannaaw ga toll ci fukki ugiya ak ñaar ak lu tegal waaw nee na mu ne wallahi baada hada lahu nabaun azim wa xatarun jalilun jasim maa ngi waat ci buur yàlla la nag bu yi jàllee ku fekke ca kanam da nga gis solo bu mag danañ gis mbir mu mag it ci li nga xamne moy feñ ci mbiru Muhammad mi nga xamne ñëpp xeb nañ ko fiñu tollu ndax alal ak leneen waye khadija limu def xamna ko ci gis-gis la ko tege neena na bàyyi taxam ba amr ibn Asad maye ko ci li nga xamne moy mooy li gën a wér teg cene huwal fahl la yuqdahu anfu waaye bi ne hadal bidu la yuqrawu anf te mooy nangul ne ah Mohammed de guerrier pire la nag ndax ki ñeme lii ci âge bii kii du moroomu xale yi su ko defee kon li ci ay wuute la yoo xam ne soriwul ci lañu ko cane li ñu bëggoon jiis rekk mooy ñu xam ne sëy bi ci nii la jaare yàlla mottali ko ah, euh, ñu bégge ko nag mbegte gu rëy loolu ci la góor gi dellusi ci kanam wax la itamit fi mu njëkk a jaar ñu denc ko laata muy ñëw ci loxo sallallahu alayhi wa sallam mu ne hindun tazawajaha min qablihi wa atiqun xiila bil aks hindun hind muy abu haalata ibni zurarata ataymi denc na soxna tazawajaha denc na soxna xadija min qablihi lu jëkk sallallahu alayhi wa di ko denc wa atiqun ku ñuy wax atiq ibnu aiz moom tam denc na ko lu jiitu sallallahu alayhi wa sallam ne ibnu abid te mooy hind abu haala denc na ko hind foofu turu góor la moo ko denc am ca haalat gannaawam atiq denc ko la waxeef na bil aksi ci safaan bi ne atiq moo ko denc gannaaw ga hind doog ko denc waaw waaye ku ci ne am naag yow doom doom yooyu yàlla baaxe na leen ci saxaaba yu sell yi lañu bokk mu ne wa sayyidu shuhadaa yi sangu ñette ñi dee ci xare shahid al aqda wala boog wal al aqda teewee na pas-pas bu shaahiduhu aji teewe la ko te seen istixaal ci ndax shaahidu mënatul jëf ci aqd wa sayyidu shuhadaa sangu ñi dee ci xare muy xamzatu ibni abdil muttalib radiyallahu taala an al aqda teewe pas-pas ba shaahiduhu aji teewe la ko xamagoo ki may wax sawaaqul ahdaa kay mànga konu noon yi rëgët leen sawqal ajdali kem màngoog euh, jëgëñ xutami buy màbb euh, ndeyjoor ak càmmoñ sawqal ajdali kem màngoog maf muy rab yooyu di fàdd alxutami bay moñaxe ndeyjoor ak càmmoñ te noonu la daan def ci biir sàppe yi maymanatan wa maysara góor gi ne amal xatibu lahu ki ko xutbaal fal amu bay tax bala abu taalib kaafiluhu kay aji yaram inna nabiya bir na ne yonent yàlla bi sallallahu la saadul ahli ku texe ñooñ la wala amami aki ak mbolo al aqrabin yàlla def na ci ñom texe waye amam mbolom ci moy am al amam ay al am ismun lil jami ci moy ni mu tedde al aqrabin non la tedde itamit ñi mu am nga xamne sax do len bolé ci ñi mu jégañalé ndax ku yàlla tan tanal la motax ñi mu am ñëpp ay tanef lañ sadaaquha canu yaay kan kaana nekk na kaafan di ñaar fukk bakraten ci giléem yu ndaw ñi ne isnatay asharata uuriya la am ñu wax ne booy boole ñaari riwaaye dañu wax ne can gañu teewal fukki uuriya la ak ñaar ak lu tegal gannaaw ga mu joxe ñaar fukki gëléem yu ndaw teg ko ca ñi déedéet ñaar fukki giléem yooya moo mooy doon valeuru lañu waxoon ci alal moo tax mu ne la wa yuqaalu waxeef na xayru za lu dul lii faxtilaafun wuute xilfu nahjihim lu taqoo ngiru ahlu siira la lu taxoo seen yoon la néew na eh, wax joo xam ne benn waxa cee ñëw kon nag jàppal ci li ma la wax rek wa bil jazuri rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam awlamaha nafisatun fa dasisun xayru muttaham wa rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam eh, aw bil jazuuri ci gileem gu duuf loolu moo tax mu bokk ci sunnaam waaw lislaam bëggul xumbeel waaye sëy bëgg na nga céetal wax na ko ak benn saxaaba bi mu takkee soxna mu ne ko awlim walaw bi shaat waaw donte nag benn gàtt rek ngay rey miche wi ko jox gaañi waaw ñépp yëg ne diw jox nañ ko diw soo ko mënee def ko moo tax lislaam bañul euh, nga def berndeel ci soxna suy wàcc si muy li ñu wax céeti ndax wa awlamaha céetale na yaay xadija rasul wa rasulullahi ndawal yàllal awlamaha céetal na yaay xadija bil jazuri ci gileem gu duuf nafisatun soxna suñuy wax nafisa fa dasisun ndiig la xayru muttahami boo xam ne du mu aji du ku ñu tuumaal waaw nafisatu binti mun bi nee na ndiig la loo xam ne xayru muttahami tuumaaluñ ko dox na la mu war a dox am na ca ndamit إماءها أمرت برقص من طرب فما لها يا لها في ذاك من إثم yaay Khadija bég ci lool waaw bi yonent salaa sallam rayee gëléem googu waaw ñu togg ko berndeel yaay Khadija jox ndigal jaamam yu jigéen yi ñuy tëgg ka woy feeñal seen mbégte ci bis boobu moo tax mu ne amarat sant na ima aha ay jébeeram jébeer mooy jàm bu jigéen bi raqsi ci tëgg fecc min tarabin ngir mbégte gu mu am ndax moom loolu rek moo doonoon soxlaam ñu naan kii xanaa sëy newul ci bopp bi fekk ki mu bëgg a sëyal moo nekk ci bopp bi bi mu jotee rek def na ko fama laha bi maanaa fama alayha dara topp ko ci mi fii zaaka ci sant googu mu sant ay jaamam ñuy tëgg di fecc min isami ci benn bàkkaar yàlla ha yéem naa soxna soosu yal nañu ko yàlla fayal mu ne muy wax nag ci mazaya yaay xadija mu ne qabla nisa sadaqat awladuhu xaraju minha siwal badri ibrahima dil wazam mooy jigéen ji nga xam ne sadaqat dëggal na risaala sallallahu alayhi wa sallam nubuwaam nisa jëkk jigéen ñi xeetu jigéen moo ci njëkk gëm bankal sa baaraam awlaaduhu doom yi ko yàlla dénk xaraju bàyyi ko nañ min ci soxna soosu kon mooy ummu awlaadi ñépp mu ne siwal badri kudul weer wa ibrahima ibrahim ibni maria alxibti zil wazami kay borom dolli ku ngëneel mu ne kooku rek la jurul waaw moo tax ba ko euh, euh, sallallahu alayhi wa sallam di tudd yaay aïchatu xaw ca fiir ne ko su ko yàlla jëlee itam xañ la ko jox na la ku ko gën dafa siggiwaat toog xool ko ne ko joxuma ku ku ma gën ndax bañu ba ñu ma weddee moo ma gëm ba ñu ma xañee seen alal moo ma jox alalam ouf ma jàppale ma ci biir ak ci biti bo legi nak lima yàlla dénk ci takander ci mom la bayiko nena nee la ko sumil chapeau dotuma wax khadija wala jam lay wax munem ibrahim mi mala wax ne mom rek la jurul ci bant yi mu am sallallahu alayhi wa sallam wal um ndayam mariyatu mariyatul xibtiya la mooy yaayam waaw wal um yayam maariyatu la law aasha bu dundoon faaza dana tuufu bihi ci sababam alxibt ngir xubt ndax danañ goreel ñépp fawzan ak tuuf aziman gu màgg xayra munsarimi boo xam ne duma aju dog mukk mu wone ne euh, dem na waaye yàlla ngi koy mottalil euh, euh, ndawam ca aljana waaw nee ci loolu ñu wax xadija jagle yi ko yàlla defal moo tax hind bi ñu doon wax nga xam ne atiq moo ko jur bu bokk ci saxaaba yi nga xam ne xadis bi melal melokaanu sallallahu alayhi wa sallam moo ko solo kaana fasixan baligan wasafan da daan wax moom hind boobu nga xam ne atiq moo ko jur ak soxna xadija da daan wax ne ana akramu nnaasi aban wa umman wa axan wa uxtan waaw mu ne fii daal ñi fi ne maa ci gën a tedd baay gën cee tedd ndey gën cee tedd mbokk mu góor gën cee tedd mbokk mu jigéen ñu ne ko waxal li ngay wax nan la mën a demee mu ne abi rasulullahi yonent yàlla bi mooy sama baay ndax moo denc sama ndey sama mbokk mi ma bokkal ndey muy góor xaasim la ah, sama jigéen di sama jigen ñu bokk ndey fatimatu zahra la sama ndey jima jur moy khadijatu binti khuwaylid mune kon ma fi gën bay gën fi ndey gën fi mbokk mu góor gën fi mbokk mu jigéen ku ku am lolu wax kon nak soxna sangi nonu radiyallahu taala anha waxon na la ne al almuxtaaru ku ñu tan ki lam yakumi denchul ghayraha kudul mo ci beyte ñaarel bi ci fasl bi almuxtaaru muy ku ñu tànn lam yakumi dencul xayaataha diiru dundam xayraha kudul moom moom diiru li mu nekk ci loxo sallallahu alayhi wa sallam benn soxna la amul wat ku ko wettali mu ñëw nag ci li ñu waxoon ci binaau quraychinil kaabat mu ne aama salaasina baada alxamsi qad xadara albinaa حتى بنت كفاه بالعلم واسم الذي قد بنى البيت العظيم لهم باقوم بالميم أو باللام فافتهمي وحكمته قريش إذ هم اختلفوا في رفع في يومه يقضي قد العلم رضي الله تعالى عنه حامد ومحمد فلو في سما الملائك خام من إله السماء عليك صلاة بركات ورحمة وسلام كل رحمة وسعد وفضل وسلاء ونعمة واحترام من إله السماء صلاة بركات ورحمة والسلام أنت بار ندى ونان ضعاف قطرة منه للجميع مرام إنما عليك صلاة بركات ورحمة وسلام لا تقل فيه ما يقول النصارى في نبي لهم فساك عرام من سما عليك صلاة بركات ورحمة والسلام لأبي جعل السقي وعسبي من حداة بل فلا تتلام من إلهي سما عليك صلاة بركة ورحمة وسلام أن لنا في ابن هاشم وأبيس الذكرى شوق ولوعة وخرام من إله السماء عليك صلاة بركات ورحمة وسلام ربي عنا فجاس ساب رسولي وردانهم وأرضهم يا سلام من إله السماء عليك صلاة بركات ورحمة وسلام حمد الله سعيهم فودول مدل سيتي والو تبخ قريش الكعب عام الثلاثين بعد الخمس قد حضر البناء حتى بنت كفاه بالعلم قد حضرت تيبنا صلى الله عليه وسلم البناء تبخ كعب عام الثلاثين atum fanweer baadal si gannaaw juróom ca mooy bi mu amee fanweeri at ak juróom xanaa gannaaw fukki at ci dencam yaay Xadija teewe na albina a tabaxu kaaba ga yamu ca bokk na ci ñi jonjoo def ga a tabanat ba tabax kafaahu ñaari tenqam bil alami ca doj wu sell wa alxajarul aswad góor gi lezi turu maçon wala entrepreneur bi nga xam ne xatta banaa moo tabax albayt al azima néeg bu màgg bi lahum ñelle baaquumu lañ koy wax bil miim aw bil laami wala nga binde ko laam baaquum ar ruumi fafham na nga dégg lii ma la wax faftahimi na nga dégg lii ma la wax yépp riwaaya la baaquumu wala baaquul mu wax nag ci loo xam ne dana ñëw ca kanam wax akkamathu àtteeloon na sallallahu alayhi wa sallam quraysh idhum ixtalafu ba ñu wuutee fi raf yi ci yëkkati xajarul aswad delloo ko barabam fi yow mi ca bisam ba muy bisu boppam ba altine yaqdimu atte fa xadal alim atte sang boo xam ne bu àttee kenn dootu xëccoo ah Quraysh ci kaaba gi ci junju rek kaaba gi dañ ko yëkkati woon noonu rek mu doon am téeg moo xam ne ca kawam kenn xaddu ko benn teen a nga woon ci biir yi ñu daan hadiyal kaaba gi ca lañ ko daan def yenn ndaw ko ndaa yeeg sàlleen yi sax dañ daan yéeg waaw bu ñu demee lu fa ne ñu yanu ko waaye terewul mënuñu ci soppandiku ndax noonu lañ ko fekk ñu dem ba jëmmi jamono benn yol ñëw màbb ko waaw ñu ragal ne nag ndox mi buñ ko seetaanee mën na maasale lépp ci lañ jege nag taxaw ci def yitte ci tënk rek ñu ne ku ñuy wax abu wahab ibnu amr ibnu aiz ibnu imran ibnu maxzum nga xam ne nijaay la ci abdallah mi jur yoon salaa sallam ku teddoon la ci biir aw nitam ñu ne moo njëkk a dem rek jël benn xeer ci xeer yi fi mu ko yëkkatee taxaw rek xeer wi tëbe ci loxoom dellu fa mu jóge woon ca la amee lu mu yëg nag mu ne Quraysh na ngeen fexe ba alal ji ngeen di def fii ci tabaxaat néeg bi mu na doon lu lew ci lañ seddoo Kaaba ga ñeenti xaaj koñ bu ne ñu am kuñ ko jox waaw ñi wàllu buntu baag la ca uh, wetam ñu jox ko bani Abdi Manaf ak Zuhra diggante xajarul aswad yamaani ñu jox ko bani Maxzum Taym ak Taym ak ay giir yu bokk ci Quraysh nga xam ne foofa aju gannaaw kaaba gi ñu jox ko bani jumax bani sahm li féeteeg xajarul aswad muy xatim ñu jox ko bani abdidar ibnu qusay ak bani asad ibnu abdul uza ibnu qusay ibnu abdul kaab daal di tàmbali nag ku ci ne lañ la seddee nga tàmbali lijjanti say birig waaw ak yamu ya ca aju ñu def yitte boobu nag def ci yitte ju mat sëkk taxaw tabax ko ba ñeenti koñ yi taxaw ñu euh, téegal ko nañ ko téegale euh, euh, def yi yitte nag waaye ñu ñëw nag ba dara desul lu may delloo xajarul aswad barabam ku ci ne gis ci sa bopp ku ci ne nga ne doo ko bàyyeeg sa moroom jaaxle am ñu ne dem na ñeenti guddi ba juróomi guddi gannaaw gi nag lañ ne ah ñun ñu taxaw ci liggéey bu mag bi ñu neen ba pare bëgg fee jàppante waa du wuute fi ndax lii rek lii du xalaat ñu ne fekk jataay bi keroog bi ñuy waxtaan benn maga nga ci mooy eh, eh, eh, moo ci féete kaw ci wàllu at ñu koy wax abu umayyata ibnul mughirati ca mooy xuseyfa nga xam ne mooy yaayu mooy wëy juru yaayu jullit yi ñu ki ñuy wax ummu salamata ummul muminin radiallahu taala booba moo ca mag mu jox leen xalaatam ne leen yéen Quraysh waaw li ngeen di wuute dangeen di bu ngeen bëggee noppalu bunt bi joxañ leen bunt ñu ne bunt biñ daan wax baabu bani shaybat ca gannaaw gi ñu koy wax baabu salaam mu ne leen ku njëkk a dugg si ci bunt bi lu mu àtte tënku leen ci coow li jeex ñu ne baabu safa la leen wax ñu nangu loolu rafetlu ko lool faf yàlla def ka njëkk ne tëll ci bunt boobu ñuy wax baabu bani cheybata muy baabu salaam tey mooy muhammad ibni abdillahi rasulullah biñ ko gisee rek ñu ne ah haadal aminu radina waaw ñun nag dañ doon xëccoo faf amin moo njëkk a génn nangu nañ haada muhammadu haadal aminu radina mu ñëw ba ci ñoom ñu wax ko nee na yàlla yankiwal ko fa lam ko yankiwal mu ne nañ ko andil malaanam ñi ne déedéet ñë eh, eh, malaan ñi ne ñëg la andi eh, teg walla kaala teg daldi tàllal ko ci suuf moom ci boppam mu yëkkati xajarul aswad fa mu nekk teg ko ci digg kaala gi mu lal wala sér bi mu lal daldi ne giir gu ci ne na tànn ku ko doy mu wuutu ko jàpp benn koñ waaw nee na euh, ku ci ne tànn euh, euh, ci ki ñee tànn Abdou Manaf fañ ne woon ñu tànn Utbatu bnu Rabia Zamaa beneen ba ca des ñu tànn Zamaa beneen bi ci des ñu tànn Abu Xudayfatu bnu Mugira beneen bi ci des koñ ba ca ñooñu tànn Xaysu bnu Adi muy ñeent ku ci ne jàpp benn koñ ñu ànd ak moom mu topp leen ba ñu teg ko ci peggu kaaba gi sallallahu alayhi wasallam yëkëti ko loxom yu tedd ya delloo ko ca palaasam tabax ko كما أمرهم الرسول العظيم الحكيم العدل صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ به موضع أخذه ووضعه هو بيده في موضع ثم بنى عليه للي جنجو رضي الله تعالى عنهم وتحمنا وحكمته أتلونك قريش غير قريش izhum ijtamaau izhum ixtalafu ba ñu wuutee fi rafi ci yëkkati xajarul aswad delloo ko barabam ba xaw ca xeex ñeenti fan ba juróom juboowuñ waaye yaqdi mu àtte xadal alami àtteeg aji maandu maanal alam huna sayidul qawm axzan anil alami alladi huwa aljabal awi raaya aydan li ann sayid eh, yuxtama eh, bihi kama yuxtama biljabal wa yujtamiu wa yujtamacu indahu fi lshadaidi wa gayriha kama yujtamacu kama yujtamicu ljundu ila raaya wa demee ci neylul arab bu suñu mbokk Mouhamed eh, Saïd Ba ci baatu alalam boobu mi ngi wane ne moo fii bi ci kaw xajarul aswad la waaye bi ci suuf mooy sayidul xawm nee na ñu ngi ko jëlee ci alam bi firi doj montagne wala raaye bi firi darapo ndax sang dañuy aaru ci moom di làqu ci moom ni ñuy aaroo ci peggu doj dañuy daje ci moom it bu jafeñ-jafeñ amee ak yeneen ni ñuy ni soldaar yi di daje ci suufu seen drapeau mu ne nag moom mooy al alam sallallahu alayhi wa moo tax ba mbir yi jaaxle rek yàlla delloo ko ci moom buntu feeñ mel ni e, waxtu wi soreetul foofu la alfaslu saamin yam xanaa ciy fàttali rek moo di la sallallahu alayhi wa sallam waxoon sunnatana nikah fa man raxiba sunnati fa laysa minni man ak yonent ñu jiitu yëpp suñu sunna moo di denc képp koo xam ne dafi bàyyi suñu sunna nag nekk ci ab surga ak célibataire nee na bokkoo ci ñun leneen nga roy ca làbbe amul barab ci diine wax na bis mu ne miskiinun miskiin miskiin damuy ñetti yoon ñu ne ko yaa rasulallah miskiin bi kan la mu ne ah xanaa góor gu amul soxna ñu ne ko xanaa day fekk amul alal mu ne wa in kaana maalin miskiin la delluwaat ci beneen ci jigéenal ja mu ne miskinatun miskina miskina miskiin bu jigéen bi miskin bu jigéen bi ñu ne ko kan yaa rasulallah mu ne sox soxna su amul boroom kër nee ñu ne ko ah, xanaa day fekk amul alal mu ne wa in eh, kaanat zata bu amoon alal judul jeexit miskina kon nag yal na yàlla xiir njabootam yépp ñu dund sunna boobu mottali ko ndax ñu génn ci loo xam ne dalay def miskin ñu ngi ziyaara ñëpp di balu àq ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.